daru ñu laaj ku la fi indi Youssou ma jigéen la chaque chaque fois mu koy def fi ci Mbour yeen wa Mbour la ngeen koy fasiyene accueillir tay wa ak euh, ça va alaykum ma ngi nuyu ñep d'abord xana accueillir ko comme d'habitude rek fess fi mu bo nii à partir de 11h do am place de parce que Mbour day wacc ba zéro ndax Yusuf ko jaar content mhm. ci Youssou rek moo ñu ko jaral moo tax ñu jaay suñuy laal ñom ñep ñew sek fek ci ko fi dina yëngu ba mu neex ba wacc ko ba zéro dina yëngu de waaw dina yomb tal moom Youssou Ndour moom sama xol seet na moom parce que man am amul noo yomb ko dul moom ndax Youssou Ndour sama lépp la. combien de fois naa ko sama moom sama lépp la ne sama man mool laa waaw damay dem géej gis nga bañ naa ko xoolal gis géej ñu Youssou Ndour bi may def lu ne dama koy bàyyi ak pare naa dama koy bàyyi. merci yu rek dara du doy ñun daal kontaan si Youssou Ndour rek chaque fois rek nii la ñuy def di ñu bégal 1er janvier at bu bees bi mu jig ñu lool ñu ngi koy jëfal di kontaan si moom na ko continuer nag merci. oui Youssou Ndour Mbour. ah Mbour na tey. day nice. <laughs> waaw mais sama fans la. oui. waaw yàgg na nag yàgg na nag quoi. daaw ñëwoon nga. daaw ñëwoon naa waaw. ren tamit mooy loolu. waaw ren tamit mooy loolu. début début maire nouvelle an bi kon neex na ba pare. waaye neex na ba pare ñu koy def chaque année rek. noonu la ah. Youssou Youssou Ndour yan lay de. waaw gis nga dañoo ñëw rek ci Youssou Ndour bi <laughs> waaw. ah tey moom macha allah day saf sap ah non bàyyi mu dugg si waaw tey dañu ñëw rek bégal suñu xol voilà guddi ko laaj. du di fi ñëw di bégal wa Mbour yi la ngeen la ban message ngeen koy lancer ban ban ban sentiment ngeen am ci lo di ko won rek ne ko ñun bëgg nañ ko def nañ ko suñu xol fas and ak mom te di ko ñaan ne ko nan ñëw bu ci kanam ak kanam kanam bu mba ñu su daal mu ngi nonu merci. soirée bi noo ko fan noo ko sentir. xaar su rek xaar merci. soirée bi neex na ba pare waaw sant yaa ko merci. merci <laughs> monsieur Mbaye. waaw ci la bokk waaw. monsieur Mbaye. ñu ne yaa war quoi. c'est vrai euh, mais soirée bi dama Europe euh, uniquement pour seetaan quoi oui. allez merci. Madam, madam, lii yëpp Youssou Ndour waral. famille bi yëpp a ndax léegi Youssou que ça va bien. maam. maam.